bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli nu ay maqaama yàllaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli nu ay maqaama yalaw uqal bukaaw ala saddaati maay bëgg a way tey jii ma way fii sangub góor ñépp yalaw kookaa di seex fallu kookaa mag moo rey mbir gën ñu njëkk ña gën ñi ñépp yalaw kooka di Seex Fallu kooka mag moo rëy mbir gën ñu njëkk ñëpp gën ñi ñëpp yàllaawo ku mel ni ma musu fi am ku dootu fi am te dootu am fii ci duniyaa wóor na yàllaawo tey jii ma jooy sayxuna Seex Fallu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàllaawo tey ji ma jooy Seexuna Seex mbar ma ni mees mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàlla murid yi xaadir yi ak tiijaan yi ñépp a ko jooy ak suuf si ak asamaan seen ndoxum yàlla ak jant beeg weer wi ak biddiw yi ko jooy ak doj ak njanaaw yeeg njaayi àll yàlla malaayika ak ginne ak yoneen yi lépp a ko jooy ak sabaya xutbu yaag wali yalaaw wéetal na ru yi ci duniyaa yépp kullu moo ru yépp jooy ko cey seex fallu yalaaw julit yi ak gi ak àddina ñépp ko jooy nun ñépp jooy ko ngir baa xam ga yalaaw nawet bi jooy ba far gàncax gi lot na tey lu yépp jàq naan ngir seex fal yàllaaw mboolem lu nekk ci duniyaa lépp lépp a ko jooy lu nu xam ak lu nu xamul mboolem lépp yàllaaw masi lañang moo la way way di sàkku yi ngaram ci yàlla ak ci sëriñ Tuubaa fa yàllaaw masi lañang moo way way wii di sàkku yi ci yàlla ak i sëriñ Tuubaa am naa moom lu ma am am naa moom lu ma xama Seex Fallu may may na ma sama ay yëf na yàlla moo tax ma xam ak sañ-sañ ya maa la ko wax ak doole jaag may ya ak xarbaax yàlla ii ma jooy fàllu laay ma silla ñang na wedam saab sëriñ saab xarit cey maa sant yàlla ii ma jooy fàllu laay ma silla ñang na wedam saab sëriñ saab xarit cey ma sant yàlla ii eh, ma joy falu laay ma silla ñang na dem saab sëriñ saab xarit cey ma sant yàlla fekk addunay tukki ñuy wax jëf ju baax ji mu def ku def ñu wax la moo def lépp yàlla jiital sëriñ bamba ak bur yàlla moo rey mbir moo jiitu duniyaa waxuraa faw yalaaw jiitoom gi war na ku ne baa xam gi dañ na fu ne seex fallu rekk a dajal fépp fépp yalaaw jiitoom gi war na ku ne baa xam gi dañ na fu ne seex fallu rekk a dajal fépp fépp yalaaw bu ngeen ma dégloo ma wax leen fallu lii ma ca xam lay bëgg a wax waaye xaw ma lépp yalaaw xaw ma lépp yàllaaw su ngeen ma dégloo ma wax leen fàllu lii ma jaxam lay bëgg wax waaye xaw ma lépp yàllaaw kuy way sëriñ fàllu nay wax mbiru rëy mu dew sañ-sañ ya ak doole jaag xar baax ya yàllaaw kuy rëbb gaynde yarug laspeer asal du ko jamba ba sax du ko saf lii wóor na yàlla kuy rëbb gaynde yarug laspeer asal du ko jamba ba sax du ko saf lii wóor na yàlla waykat yi lay leebu ngir seen wax ji tut ji nu wax Seex Fallu gaynde la moo man góor ñi yàlla waykat ilay leebu ngir seen wax ji tut ci nu wax Cheikh Fallou Gaynde la moo man góor ñi yelaw mooy doomi saamaan sa tum ñàngoor ku jóggi ne way ku toñ sëriñ Fallou doo too dolli yelaw Cheikh Fallou mooy ab sërif moo yaatu moo bari ngor moo yor mu ñug suuf te Falloo yaatu yelaw Cheikh Fallou moo sañ a doon aalim di attey mbiram caalimul xaybe ngir sañ-sañ bayalaaw moom daana fekk ku jëm niiraan mu ñoddi ko fabu yërëm ko tabbal ko fil jannaati yalaaw moom daana fekk ku jëm niiraan mu ñoddi ko fabu yërëm ko tabbal ko fil jannaati yalaaw moom na fekk ku yor bakkaar ba xol ko laabal ko bam leer nañ yelaw xol ba ko laabal ko bam leer nañ yelaw moom daana moo yokk saa fan wi cey seex fal yelaw defar na tuuba ba leeral lépp bam ni fa yaax bur yàlla leeral ko mook seex bamba yàllaaw tuuba ngi làmp yi ndox meeg lépp moo ko fi def moo xotti mbedd yi leeral lépp yàllaaw okaasit moo ko fa def saxal fa xéewal yu rëy armeel yi moo ko tabax bam yaatu yàllaawoo moo yokk yoonu sëriñ Tuubaa wi mooy ki fi gën bam yaatu kàpp ba daj àdduna yàllaawoo du denc mukk alal lu ñëw mu fag ko joxe tabam ga gàcceel na wax set wóor na yàllaawoo du denc mukk alal lu ñëw mu fag ko joxe tabam ga gàcceel na wax set na yàllaawoo